waaw waaw mais Griff mon ami mon frère e eh, Maram Sougou Maram Sougou li nga sañse yaa sagal sa jëkkër fa tabaarkalla macha allah sama jabar jaaji borom New York City yaa waaw yow xaar bi waaw waaw boo xaar waay waaw waaw yow yaa sagal sa jëkkër Maram Sougou ngay am noonu barki yonent yàlla Mamadou ah yow ñooy coob xoolal ma lii maanaam sugu bu baax bu mag bi biee bu mag bi lay joxe laay lay la laa giri sugoo gi noonu cey sam waaj yàlla ko yàlla defal jàmm waaw waaw biee bu mag bi la joxe dee loolu yow yaa sagal sa jëkkër yàlla na la yàlla defal jàmm depuis New York City laa la xam Sido Ndiaye ale Sido from day one you been a defal jàmm. Sido Ndiaye bu baax bi yow vraiment day waan.